voilà donc da ngeen di utiliser li ngeen xam ne dina ko mën a euh, euh, bënn voilà merci Mohamed ñu dem donc ngeen trouver ko donc mais boo leen koy trouver doo leen egg ba ci suuf parce que bu leen fàtte ne ndox bi après glace bi dafay daal di seey donc boo leen ko bënnee ba ngeen gis ne carrément euh, am na bënn bënn voilà comme vous voyez mi ngi noonu. alors bënn euh, bënn yaa ngi noonu donc dañuy daal di ñëw ci ventilateur bi euh, tout d'abord dañuy génnee rek li nga xam ne mooy hélice bi hélice su ventilo bi la ñuy daal di démonter donc neenaa naa leen démb ci góorgóorlu bi ma indi woon ventilateur yi yëpp dañuy démontable léegi euh, boo leen ñëwee ngeen daal di jël rek li ngeen xam ne mooy collier en plastique boo leen demee ci grande surface yi dañ koy daal di jaay collier en plastique bi boo leen dindee hélice yi ba pare collier plastique baa ngi nii merci Mohamed Euh, donc euh, voilà ngeen daal di ko dugal ci bënn bënn bi daal di ko fixé ci derrière bi fekk génnee ngeen rek li ngeen xam ne mooy hélice yi ba pare comme vous voyez après ngeen daal di ko tëj ci ci voilà boo leen ko tëjee ngeen daal di dagg cat yi ngeen delloowaat li ngeen xam ne mooy élise bi voilà boo leen delloowee hélice bi rassuré wu leen ba serré na bu baax a baax parce que bu nekkee serré wu mun na daal di rocceeku te bu nekkee tëjoo leen rek li ngeen xam ne mooy ventilo bi mun na créer ay dégâts donc gis ngeen serré na ko ba mu baax ngeen daal di tëj li ngeen xam ne mooy ventilo bi. voilà après nag li ñuy daal di soxla mooy ay glaçons euh, ku nekk am na glace këram bu nekkee euh, amoo leen glaçon mun ngeen def mbuusu glace ngeen daal di ko toj ngeen daal di jël ngeen bëgg clim lépp si bëgg mhm. <laughs> daal di ko def ci euh, bouteille bi ngeen xam ne moom ngeen trouvé donc voilà boo leen ko branché nag air bi nga xam ne kilim bi waxuma leen bu un cheval bi mais bu deux chevaux bi bi muy génnee moom lay daal di génnee boo leen paree nag bu glace bi seeyee ni ngeen di def c'est très simple bouteille bi ngeen di ibbi bouchon bi bàyyi ndox bi mu daal di wàcc comme vous voyez donc mu nekk loo xam ne astuce bu pratique la et que pour ñi nga xam ne amuñu moyen parce que voilà am na ñu bari ñi ngeen xam ne voilà gis ngeen ndox bi da ngeen koy daal di sotti rek euh, ba rek ndox bi jeex pour ñi nga xam ne amuñu moyen clim am na ñu bari ñi nga xam ne dañu ne duñu jënd clim parce que ça consomme beaucoup beaucoup euh, d'électricité ba tax na lii c'est très efficace et voilà boo leen ko defee rek euh, di ngeen am fraîcheur boo xam ne moo mat clim sëriñ ñoo yem kepp Aïcha. Hmm. ah oustaz. man bu ah, ah, dafa tàng de. Ah, gis ne la ñuy ni ni kilim bi di tooxee ndox. waaye ñu daal ndox mi lay toox de. <laughs> moo ko way waykat bi doon waxee ku xeebu sa noos kenn dàqaloo noos. kenn dàqaloo noos ni. toll nii moom waaw. Pape naka ngay gisee astuce. bon. <laughs> Aziz bi Aziz bi bizarre la quoi <laughs> non mais franchement ñu xam kan moo am jotul def ko ah. ñu amul moyen clip. non mais mais mais amoo mais xanaa xamul euh, clip nekk euh, maanaam clip sax clip nekkul nekkul am na ñoo xamante ne bëgg nañu ko ut affaire bi nekkul moyen bi mais courant bi moo cher. c'est toujours les moyens. non mais je veux dire que euh, xam nga yàq. c'est différent ak ay ak ay par exemple lu muy produire ci courant. déjà day pro day produire courant lu bëre ba pare aussi tamit da euh, euh, am na ñuy wax ni clim lu muy def ci santé tamit c'est pas. c'est c'est pas c'est pas bon. donc donc pour man bon voilà su ventilo su yaaxoo je pas moom nga dajale pour jënd beneen ventilo mais lii moom nga dëkk ci di charger glace mais ventilo aussi c'est pas bon pour yaram parce que bu nekkee ngelaw gi. da est nekkul bu la jigéen la wax. Mm, boo ko fixé tam mën na ah. la jox ay problème mu ma mais astuce bi moom bon je je crois pas que ko topp. merci beaucoup. <laughs> yow doo <laughs> dama taay si Pape li neel yow doo ko topp donc ne parle pas pour les autres. Pape nee na astuce bi dafa bizarre waaye moom moo bizarre. moom dafa bizarre trop. <laughs> man dinaa ko essayé de man moom retour sur le plateau matinal waaye naan de retour sax Pape yaa ngi may distraire <laughs> ñu ñu ànd ak la régie dem léegi léegi ñu dikkaat maa ngi retour.